ñu ñëw ci xaajalu murit xaajalu murit bismillahi irrahmani irrahim alhamdulillahi rabbil alamin wa ala sayidina wa maulana muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman hawnaka ya muinu wa bika nastahinu la hawla wala quwata illa billahi alil azim képp koo xam ni doon nga am murit te yàlla def la nga nekk ci digg doole li la njëkk war mooy liggéey ndax saa soo ko deful faaw ngay sukkandiku ci kudul yàlla li ci ëpp te lool yi dana waral ñaar ñàkk jom walla merak ku la deful dara ñëpp sax ñoo war a liggéey waaye rawanteeg am moyit ndax joxe day loo xam ni lu mënta ñàkk la ci sunu yoon wii ak lum tuut tuut liggéey nag nañu xam ni taxuta am ndax wërsëg lu yàlla sunu borom bind la ba noppi boo koy sabablu ci mbir bu la koy jox da koy jaare ca mbir ma boo ko dul sabablu ci mbir mu ñu xam ni ki di yalwaan wala ngay laaj da koy jaare ca laaj ga di la ko jox te laaj baaxul bu mënee ñàkk tey ku ko xas tàmmuli bàyyi ko dana la jafe fii fi réew mi nag liggéey yi fi gën a not mooy sàmm ak bay walla jaay bitik walla di wër di jaay walla mécce woo dara mel ni ñaw walla wuude wala tëgg wala dawal oto wala ministre wala ngay tukki bitim réew wala ngay jàngale tubaab wala alxuraan wala xam-xam wala ngay liggéey ci nguur gi wala ngay liggéey ci nguur gi dara lay fay bu dee lu mel ni sàmm boo koy def te di murit war ngay bàyyi xel waxtu wu ne bëri le taxul ñuy sàmm dil génne asaka te xew muy màggal wala gàmmu wala tabaski wala kori wala tamxarit ngay rey la gën a rëy te fas ca liggéeyal sëriñ tuuba xaada laho laahu maxtaara laho fanweeri nag yu ne benn bu góor bu dëgër mooy asakaam ñeen fukk yu ne benn bu jigéen bu dëgër ñeen fukki xar wala bëy yu ne benn bu dëgër mooy asakaam boo amee téeméer ak ñaar fukk benn ñaari gàtt ngay joxe at boo amee ñaari téeméer ak benn bu boobaa ñetti gàtt mooy asakaam boo amee ñeenti téeméer nga joxe ñeenti gàtt bu yokkoo itam téeméer bu ne benn gàtt ngay joxe del moytu say nag wala say xar di ruur saa suñ ko defee na nga fay la nga war a fay lépp boo ko deful di jaay doole xaqa lay doon ju tege ci ci sa kaw faw ba yowmal xiyaamati te ngay nemmiku jur gi lu ñu war a faj nga di ko faj boo ko dul def itam loolu xaq lay doon foo man di nekk bu waxtu jotee nga bàyyi lépp jàpp julli door a jëm ci looy jëm boo jëlee kenn di ko fay weer wu mat dee ko jox ak payam bul ko ameel dara moom it war nay sàmmunteeg li ko war ci jur gi lépp jàppe ko alali boppam lépp lu muy def ci alali boppam mu ko cay def bu waratee tuxu fu am ñax mu tuxu bu gisee bërëb bu baaxut ci jur gi mu koy moyu bu ko deful te man ko lu ja faatu xaq lay doon ëllëg bu dee da ngay bay war ngay génne asaka at mu ñoree te mboolem loo ci dégg ni lislaam taamu na ko ci nga koy def lépp loo ci dégg ñu ni lislaam bëgg ko nga koy daw ci gàttal lépp loo xam ni boo doon bëgg a faatu tey doo ko def wut alal wëtta tax nga di ko def boo dee jaay bitik war ngay bàyyi xel ni yaa ngi ci njaay mi gën a wóora di te gën a bari ay teqantal ëllëg del wattoo wax loo wëtta wax wala nga di ko def su ko defee fen bokk na ci bàkkaar yu mag yi boo ko mënta bàyyi cim njaay day jar sax nga bàyyi njaay mi boo ko deful dana lay yóbbelu la naqari lool ëllëg saa soo duggee at nag na nga seet li nga yor génne asaka naka noonu bor yi ñu la ameel ta nga yaakaar ni danañ la ko fay waxtu wi ngay nekk ci sa bitig itam ngay farlu ci jàng loo man ci alxuraan ak xasida tey werdu tey diglu bandi yi am solo mel ni bandi sëriñ mbay wala sëriñ Mbay Jaxate wala sëriñ Abdou at wala yu me noonu ndax boo ko du def nekk ci ñi rek day mujj sa xel fàtte yàlla ak jaamu ko fàtte itam lu dig taalube saa su ajjuma ñëwee boo ko mënee la ca gën nga bañ a xëy te dem julli ji boo ko deful itam daanaka bis bi doo fi jaay lu ko jar saa su waxtu julli teewee nga tëj walla nga wut soxna su la fa toogal te dem julli ji ca jàkka ja te nga xam ni wërsëg jaay joxewu ko yàlla moo koy joxe te julli juróom ñor na ko lool lool lool bu fekkee da ngay wër jaay ci dëkk bii di Tuubaa loolu am na tuyaaba lool ci dox gi ngay dox ci mbedd yi ak bërëb yu baax yi te mel na ni moo gën ci wirgi yaram waaye li ca mat a bàyyi xel mooy bul nax kenn walla ngay dem foo warta dem del dammu sab gis loo man ci xool koo warta xool boo demee ba gis lu mënta ñàkk sunu borom dana la jéggal bul def fu boo mbooloo tase rek nga di fa dem bul jaay leen lu ñuy tere ci réew mi ndax fim ne boo toppul li réew mi tëral itam da ngay sonal sa bopp rek loo am tey lu mu bari bari boo xëyee ñàkk ko naka noonu boo dee dawal sareet del bàyyi xel fas yi walla mbaam mi ndax am na xàqu lool te boo ko matalul mën naa doon lor ci yow lool bu fekkee da ngay ñaw war ngay fexe ñaar bul ñaw ñaw boo xam ni lislaam bëggul ku koy sol te it jigéen goo xam ni boo waree nattal jigéen moo koy nattal naka noonu kuy fato war nay bàyyi xel ni xool jigéen ni mu xaraame ci ludul fato ni la xaraame ci kiy fato moo tax lu mel ni photo ak kamira ku ko man bañ koo def métier moo gën yu mel nii ma wax nag saa soo ko xamee ba noppi woyofal ko mënta ñàkk yoo xam ni ay nattu lay doon lu sunu borom di teg ba keroog nga di ko bàyyi te ñuy bàyyi xel ni wërsëg wi ñuy sàkku ki ñu tere yii moo koy joxe du kaneen du leneen bu ñu bëgg alal taxa bàyyi ay ndigalam ak i tereem bu fekkee da ngay wuude del moytu aw der boo xam ni daganul nga di ko aw mel ni deru fas wala mbaam wala gaynde gu ñu rendiwul tey xam ni diggante bi ngay aw am nga waxtu woo xam ni man nga fee jaamu yàlla jaamu gu rëy te mooy xalaat yàlla di lu màggug sunu borom di ko bàyyi xel tey fàttaliku bis boobee nga xam ni léegi mu ñëw xalaat yooyu moo gën jaamu yàlla yu bari naka noonu boo dee tëgg wala ngay minise bul lekk xàq jàmbur mukk boo ko defee sa lëggee du barkeel te balaa yàgg danañu lekk sa alal te doo ci man dara koo war a fay dee ko teel a fay tey moytu tooñ ak xàq naka noonu booy dawal oto na nga xam ni yaa ngi ci métier mi gën a wóoradi da nga yab ku ne da nga yab walliwu da nga yab wayu lenn képp moo la mën a musal te mooy nga am ab yar di balu xaq ñépp tey bale xaq tey saraxe saa soo xëyee bul xeeb kenn muy góor muy jigéen saa soo nekkee ci sa biir oto dee diglu bànni xasida yi képp te bañ cee boole leneen wala boog muy alxuraan boo ko deful sam xel wala saw làmmiñ doo ko mën a wattu mukk tey ñaar yooyu ma wax boo koy diglu yër ma ne yàlla dalee jige lool sa wërsëg sax mën na koo dolli bul yàkkamti bul werante ak kenn naka noonu boo dee tukki bitim réew war ngay góorgóorlu bu baax te xam ne ñi nga bàyyi fii dañu lay yaakaar lool waaye nag yaakaar yooyu bum la tax a jëm ci loo xam ni neexul yàlla sunu boroom na ngay moytu jël jikkoy ñooñee ngay fekki ndax boo ko defee ba ñibbisi nekk ak waa réew mi dana la jafe te nga xam ni say soxna dañoo am xaq ci yow ak say waajur boo ko mënee bul fa yàgg yenn yàgg yi looloo tax ku ko man toog fii ci réew mi moo gën fopp loo am ci sab liggéey doy loo ko ñu bari fi mu ne ñàkk xam moo leen ci dugal waaye bëri na lool lool ay sikk yu ma mën a tudd ci lislaam ak ci ak taalube nañuy bàyyi xel ni liggéey taxut a am sabab lu wërsëg rekk la wallahu aalam naka noonu boo dee liggéey ci nguur gi ñu lay fay na ngay bàyyi xel ni bari nga lool ay moroom yu ñu dul fay téye na yem képp del jël lu tollook sab dund képp li ci des nga koy jox ku ko aajawoo ci réew mi tey matal ay xàqam boo ko dul def dana la sonal lool boo duggee ci bàmmeel lépp lu la war dee ci taxaw sa kem kàttan bañ koo bàyyee ni ñi ndax ci coono yooyu ngay mën a yooyoo lekk li ñu lay jox del xool lépp lu nit ñi soxla ca anam googee nga di ko amal bul yëkkati sa bopp mukk naka noonu boo dee jàngale tubaab wala leneen lu man di doon ci réew mi da ngay bàyyi xel ni am na beneen bis boo xam ni lu lëndëm fii dana fa leer lu lëj fii dana fa lijjantiku wallahu taala alam naka noonu boo dee jàngale alxuraan wala xam-xam war ngay am yéene ñoom ñëpp mokkal te ngay jëflanteeg ñoom ni ngay jëflanteeg say doom bul bàyyi xel sak pay rek loolu ëpp naa def del fexe waxtu wu ne njàng mi di jëm kanam te nga xam ni li ngay liggéeye moo gën ci mboolem liggéeyi waaye ci kaw sellal gu wér ak sàmmonte bul bari looy dóor bul saaga fi seen kanam bul bari am fo yooyu yëpp day waral gone yi du ñu yaru naka noonu del néewal sëbbër lool daa naka ayu bis doy na sëkk ci kori ak tabaski ak màggal ndax fu ne jamono moo xat lool te gone yi gaaw ak mokkal lool inna lillahi wa inna ilayhi rajiun yow sama mbokkum taalibe del xam ni hadiya kenn waru koo joxe te am ay bor saa soo fayee say bor xoolal sab dundu boo amee dundu bis nga door a joxe hadiya maa ngi lay xamal am na lu xew léegi loo xam ne ñu bari dañu ko jàppe ak taalube te doonu ko te mooy di ëppalante ay hadiye ak ay xari tabaski ak di ko laaji wala di laaj ay hadiye yooyu yëpp njëkkoon dañ ko daan moytu maa ngi lay dénk lépp looy feeñal na nekk ci yow bu fekkee tuubaa nga dëkk war nga ay bis gone nga ji sëriñ tuubaa xaadalawo la boo fi dëkkul weer wu ne nga siyaar si ko siyaare sa wasila ci moom te mooy sab sëriñ bi dox sa digg moom maa ngi lay xamal ni jamono ji ñu nekk mbindum sëriñ Tuubaa xaadalawoo law maxtaalawoo képp la ñuy roy ak ay waxam koo bu ngeen doxee tuuti nga gis ak manquéem wala mu gis sang manqué ngeen teqali ko nañuy ànd ngir sëriñ bi tey joxe ngir moom te jox ko sunu lépp hadiya ndax yàlla sunu borom nangu ko yal nañ ko sëñ bi nangoye noon subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salaamun ala al mursalina walhamdulillahi rabbil alamin foofu la xaajalum murid yam